asalaamaaleykum wa rahmatulah euh, gannaaw ba ma sante yàlla julli si sang-sang yi euh, maa ngi tudd Fatmata Ndaw nekk euh, la vice présidente nationale bu la nouvelle force économique du Sénégal mais aussi nekk la la présidente régional bu Thiès. tey tey ñu woote comme point de presse fii au niveau de Thiès tey damay wax ni comme ni ma ko waxee léegi ci biir dans la salle di wax ne. Ahmed Fall Braye ñu koy nuyu au passage daf fi def loo xam ne kenn defu ko fi ah mu am loo xam ne nag dafa am lu xew si réew mi ndaxte yéen xam ngeen ne senegal toujours ay rumeur da ciy am waaye bu rumeur amee te fekk na am na ñoo xamante ne xam nañu kiyelam suñ ko noppi waale dafay mel ni kon ay naafeq la ñu ngeen jéggal ma si kàddu yi ñuy wax nag tey kan mooy Ahmed Fall Braye Ahmed defe naa ni comme ni ko sama secretaire général waxee léegi bu ñu waxul ne multimilliardaire la mën nañ ko boole ci milliardaire kon c'est pas ce Ahmed Fall moom la ñu bëgg taxer d'escroc kon nag tey ñun tey suñu wax bii ñuy wax dama ne ñun nangu nañu sax ne dañ ko jëlal défense parce que borom ku dudd lakk te sama maam dafa ne am ku la doo sàll lañu ko kon Ahmed Fall Braye am nañu ko waxal te li ñu koy waxal lu dëggu lay doon lu ñuy tandu ndax Ahmed Fall Braya dafa jóg am ay moromam yoo xam ne ñu ngi fii si senegal ëpp ko alal fuuf kenn ku si nekk boo liggéeyee ba retraité da ngay dem wuti foo nekk yaag sa famille fàtte ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi nga xam ne ñoom nga dëkkaloon moom nag mu ne man duma def noonu tey si tey mu ne amal yàlla am na lu ma dénk dama koy jël bokk kook ñi nga xam ne dañoo néew doole mu jóge ci UNACOIS créer la nouvelle force économique du Sénégal ba mu koy créer ñu mu njëkk xalaat mooy ñi nga xam ne ñoo gën a tuuti la ñuy jaay bu ñu nee la nouvelle force am na ñoo xamante ne ñu ngi régler seen problème di jaay ci mbedd yi di dugg ci kër yi mais kenn mosu leen boole si leen dañ leen di romb ñii defi seen i conteneur di yóbbu di leen romb mu ne moom nag du dem te bàyyi ñooñu ndaxte ñooñu économie du réew mi li si ëpp ñoom ñoo ko fiy dugal muy secteur informel boobu nga xamante ne jaaykatu gerte caafiya jaaykatu bisaab ya gaay ka bu lu gën a néew wax dëgg yàlla kon ku def loolu defe naa ne du kooku moom moo lay soxlaal dara ñun nag ñu koy gërëm waa Thiès parce que gis ngeen li mu fi def lu ne fàng moom kenn du ko jeex siège bi defe naa ne ku ko xool xool personnel bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñi nga xam ne dañ daan traîner du ñu am lu ñu liggéey ñu fexe leen ba ñu nekk fi ñu nekk des employés di liggéey bu weer wi dee ñu for fi seen dara defe naa ne loolu ci économie réew la bokk restaurant mu ne leen mu mu mu équipé ñu ngeen yéen a ko gisal seen bopp kenn kenn tànduwu ko def fi aussi un centre de formation boo xamante ne dañ nekk ak en partenariat avec le directeur ma koy nuyee au passage muy monsieur Wade wax dëgg yàlla di former des des jeunes tey da ngeen fekk da ngeen fekk mu tëj ñu tëj la salle kon di ngeen xam ne fii centre bii ku fi ñëwul rek perte ñu ne déet na waaye ñu def fi un petit marché am na ñoo xam ne dañ fi créer ay Auchan leneen ak leneen lépp loo xam ne yéen a koy wuti fële sa Auchan yàlla mën na def bu ngeen ñëwee fii fekk ko fi mu dem ba ne boutique gu NFES boutique boo gisee ñun ñu wax ko dañoo ne dañoo nekk un mouvement national mouvement bi tey daf ko implanté partout dans le Sénégal tey si tey mu am ay richesse yoo xam ne dafa am si réew mi yoo xam ne boo ko soxlaa da ngay taal fii sa oto di dem ba boobu réew di dëkk di ko wuti mu ne leen bu leen def noonu ubbi boutique ba nga xamante ne ñooñu nga xamante ne dañuy dañuy day exploité li nga xamante ne mooy richesse yooyu si suñu biir réew jël leen ko ngeen indi ko fi ba nga xamante ne tey ku dugg ci biir nouvelle force économique du Sénégal da ngay mel ni Sénégal nga dugg produit Kédougou boo fi duggee war nga ko fi fekk produit Tambacounda boo fi duggee war nga ko fi fekk produit Dagana produit Saint-Louis lépp loo xamante ne ñu ngi koy utiliser fii di ko am ci suñu réew rek war nañu bu ñu dugg see fii si biir si biir kii bi war nañ ko fee donc di leen wax rek ne euh, gàcc ngalaama euh, président Ahmed Fall Braye Ahmed Fall Braye ku ko laal laala leen parce que nag ku la dig añ bu la bu ku la jox añ bu la diggee reer war nga koo gëm ñu ëlbatiku xëy na wax ji li ko indi mooy problème mu financement financement yi jigéen yaa ngi nii si sama ginnaaw am na ñoo xam ne jot nañu seen bos waaw robinet nag buy xel il faut que dara luy génn xalaat yëpp du àndandoo ne yuréen bu ñuy amee tey bu subaa ñeneen am mais su fekkente ne yow danga yàkkamti ba ne tey damay yàq derem politiquement nga ñëw taxaw di ko xas te yow li ngay wax lii teguloo ko fenn yow nee nga ne man déposé naa ministère de la femme déposé naa feneen ak feneen jotuma waaye ma toog di muñ mais tey Ahmed Fall Braya déposé na ma jotuma naa ko xas ba pare tudd ay nit di leen gërëm te keroog googu ñu jóge si la xalif général dama ne man dama ne sax lii làmp Ahmed Fall Braya mooy takk parce que nag mënuñu jóge ci un muy muy euh, Abdou Karim mu ñaanal ñu ñu yendoo bernde ba ngoon jot ñu génn ay jigéen bëgg ne dañu koy dañ koy wax naka su noonu kooku yàlla du ko seetaan ñun nag ñu sommes là comme toujours nous serons toujours à ses mu lu mu mën a doon muy taw muy naaj dinañu nekk si wetam parce que li mu ñu fi defal man de gàcce ngaalaama dama ne au niveau national amul kenn koo xam ne defal na ko fii cees sama baat ne poto kon nag mu si Ahmed Fall Braye ñoo ngi lay gërëm di la sant gërëm bu amul àpp amul di gërëm nag les tous les membres de de NFES di gërëm aussi personnel bi nga xam ne ñoom laa àndal fii équipe bi nga xam ne sans tricherie ñu àndandoo ñun ñëpp joxante loxo vraiment dara ñaawul lépp lu ma sumb rek ñoom ñëpp ñu ànd seeg man kon nag damay wax ne ñoom ñëpp nañu dal vraiment ànd ak dal boole xol yi tàppe xol yi te xam ne àddina amul solo koo bëgg a yàq te yàq yàlla yàqu ko du yàqu kon nag nañuy waxalante jàmm di yéenante jàmm loolu mooy dëgg man Fatoumata Ndaw lool laay wax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu maa ngi sant. maa ngi tudd Sidi Gueye nekk vice président wu régionalu nouvelle force économique du Sénégal chargé de orientation et stratégie kuréel gi. ah di nuyu ñi fi toog ñëpp ci salle bi di leen euh, gërëm di leen sant fi président daanale rek lay sànni ay kàddu yu dul bari ndax euh, jaru répétition ci li mu wax. Euh, li am rek moom mooy kuréel gi ca dëgg-dëgg ku ne xam na ne presque biñ ko sosee ak léegi mu ngi war a toll ci un an bu manqué quelques mois loolu c'est vrai xëj na ci xërt président ak ni mu ko jàppee woon au départ mooy jóg naa rek damay jàppale nit ñi mais dafa am loo xam ne boo koy def ci réew mi yépp soxla ko comme ni ko président waxee lu ñëpp soxla il faut boo ci bëggee demee nenn nii aussi il xoolaat ko ndax ñun président woo nañu fii man ak mm, man ak présidente mi ñu dem fi benn réunion boo xam ne presque réunion technique la mu xamal ñu ne bu ngeen gisee man waxoon naa waxu financement génnuma ci kale naa ko waaye bi ma xoolee départ bi ni mu nar a déparé moo baaxul parce que itam nag ma financé la rek pour financer la ma yëkkati xaalis joxe ko ñu financé nit koo xam ne kii xamuñu nit ki mooy kat te man la ma waxoon au début mooy damay jàppale kuy liggéey présidente wax na ko di commencé ci kiy jaay socc bi ci gerte caaf bi ci kuy importe ñun waa Thiès nag ba ñuy gis ak Ahmed di waxtaan ak moom financement sax wax dëgg yàlla taxul woon ñu jóg trop soxla nañ ko nag. waaye lañ taxoon a jóg mooy femmes yi formé wu ba pare te presque li ñuy liggéey amuñu fuñ ko écoulé loolu waxtaan nañ ci ay waxtaan yu yaatu ñun xam nañ ne am na ay jéego yu ci amee def mais am na fu mu ci egseegul kon su fekkee li lépp mu ngi am mu ngi ci diisoo ak ñun bu yàggul rek man ak présidente ànd nañu keroog de président moo ñu woo nasional ñu daje ak moom ànd ak moom fii ba Tiwaawoon gannaaw yàlla keroog man rek ak garde corps am ak biir otom wax na ma lu baree baree baree baree bare te wax na ko aussi présidente kon ñun waa Thiès comme ni ko présidente waxee en tout cas exeggul mais am na lu ñu président euh, lu ñu président national defal te am na aussi lu mu ñu bëgg a defal ndax boo jëlee tey kër gu toll nii di ko fay trois cent mille yu moyen dix mille par mois pendant un an presque nga teg fi ay nit comme ni ko président waxee wax dëgg yàlla nag yàgg nañ fii ci ay développement waaye am ku volontaire ci acteuru développement taxaw ne kaay leen ma fédéré leen ci force yi fi ne kaay leen ma luyeel leen kër gu mel nii di leen ko feyal ngeen mun di fa daje di xelli seeni xalaat di seet lu ngeen mën a avancer ci développement même suñu joxul woon financement joxuñu leneen wax dëgg yàlla su fekkente ne jàpp nañ ci nag bu ñu xoolaate war nañoo mën a avancer yàlla dogal na yooyu yëpp peut-être lu mu naan la lu egseegul kon su wamee ay wax yu juddu comme ni ko présidente waxee ñun ñëwuñu pour tontu ñëwuñu mais li ñuy wax rek mooy li nga xam ne am na fii au ñun ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy kii comme ni ko waxee ay réalisation nag ki nga xam ne presque moo ne ci kër gi te yàlla dogal lu bari. ku fi ñëw moom nga fiy fekk ku dem aussi moom nga fiy bàyyi muy suñu frère di suñu rakk di aussi euh, xale bu loxoom set bu nangoo liggéey aussi am na vision bu rafet aussi ñu koy defal mention spéciale ci loolu donc muy wiye jéey ci biir loolu da doon jox seed rek comme kon ni ko présidente waxee may dëggal waxam jooju mu wax ci kanamu ñi nga xam ne tey ñoo fi teew salle bi nag ñi fi teew ñëpp presque ñi ci ëpp doole ay responsable la ñi ci nouvelle force mu nam nag dañu ko wootewul ci kaw lancé ko tout le monde pour ñëpp parce que par presse la rek boo xam ne euh, li ñuy wax euh, dindi tuuma taxula rencontre c'est simplement euh, de donner une visibilité à la structure qui est la nouvelle force économique du Sénégal, et saluer par la même occasion l'ingéniosité du président Ahmed Fabraya, qui a eu quand même le courage de mettre en œuvre cette structure pour permettre aux acteurs et actrices de développement de pouvoir mener à bien leurs activités. Euh, vous avez vu, nous avons un siège fonctionnel. Et je vous rappelle que la nouvelle force économique du Sénégal a été portée au sur les fronts baptismaux euh, en novembre 2019. Donc jour pour jour, on peut dire que cette structure, elle est très jeune, elle encore très jeune. Elle n'a que un an et deux mois. Et bien, vu les réalisations, porter quelquefois des accusations gratuites sur le président Ahmed Fabraya n'est que pure prétention. Vous avez vu le siège, vous avez vu, nous avons déjà un mini-marché d'or Vous avez vu, il y a de gros poissons. Vous avez vu, il a une légumerie déjà qui est fonctionnelle. Vous avez vu la transformation qui est en train de se faire. Le siège a été transformé littéralement. Vous allez derrière, le micro-jardinage va se passer là-bas. Regardez derrière, il a, euh, il y a, il y une tasse cour qui est là-bas, derrière. Euh, sur les projets futurs, c'est vrai. Euh, L'école de couture est déjà fonctionnelle, c'est en bas. Le centre de couture est, est Vous que le maître tailleur qui est là et le chantier de l'entrepreneuriat est déjà en train de, de, de, de coudre en réalité de, de, belles choses. Nous avons aussi un restaurant bio qui est là à côté, fonctionnel, avec euh, Madame Isse qui nous concocte de, de, très bons plats. Bio, pourquoi bio Parce qu'on n'utilise pas en réalité les bouillons. On n'utilise pas les, les, les, bouillons, les magies et, et, autres. Donc ici, tout ce qui se fait ici est bio. Donc tout ce qui, se fait ici est naturel. C'est pour un peu parler à la population quand même, de pouvoir venir goûter ce qui se fait ici euh, dans la nouvelle force économique du Sénégal. Je pense que c'est une première et c'est une sorte d'innovation qui est en train de se faire dans le siège de la nouvelle force économique du Sénégal. Le transfert d'argent, c'est en perspective. Donc nous allons installer. Beaucoup de choses sont en train d'être mûries. Et je pense que euh, c'est simplement une question de temps. Donc, on peut se précipiter, c'est une sorte de précipitation. Quand on entend là-bas dans la ville sainte, à Touba, euh, un groupement de femmes qui se réclament en tout cas de la nouvelle force économique du Sénégal, euh, traité traiter Ahmed Falbraya d'escroc, okay, ou bien quelqu'un qui se, lance ou ceux qui se met dans les arnaques, ce serait mal connaître Ahmed Falbraya. C'est un homme de développement. Ahmed Falbraya, c'est un milliardaire en réalité, il faut le dire hein, clairement. Et, mais il n'est pas comme les autres. Les autres qui prennent leur argent, qui le, le mettent dans les banques, l'argent qui dort dans les banques, ce pas, la, la, la, même chose. C'est Braya. Braya a pensé à, à, ses, à ses mamans, elle a pensé à ses frères, leur montrer la voie pour accéder au développement. Mais si, si l'escroquerie là, c'est 7 millions <laughs> mais Braya vendait une voiture pour, pour payer ça, vous avez combien de camions Donc finalement, c'était juste pour vous montrer que dire que Baya a excroqué ou bien a tenté d'escroquer un groupement de femmes, leur, leur promettant des financements, ça relève simplement d'une euh, accusation malsaine, peut-être qui cache un peu une sorte de jeu politique à peine dévoilé. Maintenant, si la, est politique, nous avons les pour répondre politiquement. C'est ça la vérité. Mais nous voulons quand même voguer dans ce fleuve-là du développement simplement. Nous, nous faisons de la politique de développement, pas de la politique politicienne. S'ils attaquent Braya simplement pour qu'ils euh, donnent des financements, elles sont pressées. Ici à Thiès, des femmes ont reçu des financements. Et pourquoi la femme qui est sortie, qui a fait cette sortie-là pour accuser Braya, elle a dit clairement que elles attendaient des financements de la part de Madame le ministre de la Femme. qu'elles attendaient un financement de la part de la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Et ensuite, elle dit clairement, mais nous attendons. Mais quand il s'agit de Braya, elle dit que c'est de l'escroquerie. Quelle est la différence On attend là-bas et ensuite ici, on n'attend pas. Donc finalement, ça ressemble à autre chose. Donc je pense que, en résumé, c'était cela que je voudrais euh, dire en français pour simplement reprendre ce que les camarades ont ah wolof donc ils ont dit tout dit donc je vous remercie euh, messieurs les journalistes d'avoir nous avoir permis de de nous exprimer merci beaucoup.